fati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan ak déglu lii ngeen di seen di ko gis mooy savon teint marron ndax dafa am ci ñoo xam ni seen teint dafa marron ñu bëgg ko maintenir ba du am lenn lu ca yokk ak lu ca wàññi ndax day briller di mel na mu mel savon teint marron savon la goo xam ni lañ ko defaree muy escargot huile d'escargot ak cacao avocat huile d'argan yii nag fu mu feeñ fu ne rek te maro bu nickel la lay jox gis ngeen teint na mu yànjee rafet lool amul lenn loo xam ni daanaka mën nañ ko si seen muy gàkk-gàkk mën nañ ko seen muy tache mën nañ ko si seen muy ay acné waaye mën nañ ko seen muy yeneen yu mel déedéet savon teint marron day raxas lépp ba mu set wicc ba foo romb sax ñu lay laaj looy sangoo moo tax ku koy jënd ku ne na ko denc ndax soo ko deful foo ko denc fu ne ñu jël ko yóbbu kon ngir njariñ ba mu am ak biree ba muy biree savon teint